you asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi nga ànd ak Public SN TV Khalil jërëjëfati merci beaucoup tey ñi nga xam fi nga xamante ni moom mooy juma ji Jinaan tey di àjjuma daal di ñëw fii nara a def reportage xool gars yi naka la ñuy waajee màggal Serigne tubaak waaye tamit naka la ñuy dundee tey ajuma ji duñ def rek lu dul euh, Ibrahima Khalil ànd ak yow ci biir xool gaa yi nu ñu dugg see ci jumaa ji waaye tamit xool euh, naka la ñuy yëgee mbégte gi ak tey bi li nga xamante ni moom lépp dañ ko euh, darajale li nga xam ne moom mooy euh, wàccaay màggal Serigne Touba gi xalil dañ dugg ci biir fekkee julli bi tataan gars yi tiimale leen suñu micro naka la ñuy waajal li nga xam ne moom mooy màggal Serigne Touba yi si c'est bon xalil let's go xadim abdou waaj nga bu baax. dama ba gën naa jublu ci mbir mi moom. jublu nga ci. ah. wax dëgg moom. yow yow jekk. waaw waaw waaw. yow lan nga yëg nii actuellement. ah lan nga yëg nii jamono ji lan nga yëg. waaw <laughs> wax dëgg man ma laa wax li ma yëg nag. de mais am na mbégte bu baax a baax. wax am naa baax ci sama borom bi wax dëgg ah. moom. ci wax dëgg gën a bég ci suñu Muntaxa Mbakke. wax dëgg yal na mu yàgg fi lool ànd ak wóor. itam lu may def ci itam wax dëgg itam wax dëgg lii ma joxe ci wax dëgg su ma sañoon mu nekk million wax dëgg wax dëgg moom kontaan naa ci trop moom wax dëgg yal na borom matale lépp ci addiya bi ah, ah, waay waay ah, <laughs> yal na borom matale lépp waay yaa ma wax loo billaahi dag ma jox addiya ah déet waay ah Baye bi de jox na ma addiya ah jox nañ ma addiya ci eh, ci mbir mi ci li nga xam ne ñu ñooy wax waxtaan ci ci mbir yi ah actuellement nii man xamatuma sax lu may wax nekk ci reportage waa ji bég na ba jox ma addiya barki Serigne Touba lii Serigne bi rek moo ko mën Serigne Touba rek ko mën aja jaajëfati kontaan rek ci bis bi waaw kontaan nga waaw kontaan bis bi lool ba jekk nga ci màgg ah, da nga màgg yàgg na yéy bañ a màggale ah. waaw waaw <laughs> fi na kay jekk la dem rek la ñuy wax waaye du jekk tey waaw waaw asalaamaaleykum maa ngi saare yaa booy na def fan nga jóge daal di ñëw fi maa ngi jóge ba Pikine ah Pikine nga jóge waaw alors ñëw fekk ci màgg euh, julli julli ajuma bi mhm. tey xutba gi yëpp ñu daal koy euh, jagleel tey wàccaayu màggal gi lan nga yëg waaw man moom damaa fas euh, depuis une semaine yi dama am yëg-yëgu ñëw tey jullee fi xam naa loolu màggal gee ko waral man ma toll ci weeru màggal moom damay yëngu lool waaw te duma xam sax li ma yëngu lépp sëñ Tuubaa rek lañ koy delloo waaw di ñaan yàlla na yokk leer yàlla na yàlla yokk leer te taas ñu ci barkeem waaw jërëjëf kontaan nañ na def sant yàlla baax yaa ngi si jàmm alhamdulilah naka nga waajee màggal Serigne Touba ba yaa ngi wàcc ah màggal faal ah. barke Serigne Touba mhm. waaw mhm. lu toll ni màggal Serigne Touba mhm. am murid war koo wàcc da nga war a jekk waaw noppi yàgg na tey lan ci ci julli tey ajuma lii moom lii moom sant yàlla rek ndax Serigne Touba suñu yaakaar tey ëllëg gënoon na métti mu juma jum jullee maanaam noon nga xam ne bëgguñu Serigne Touba euh, jumaa ju mu defar ñu yàq ko dañ ne olof dañ ne loo muñ rek suñu borom fay la kon tey gis nga ko suñu borom fayee loolu sant yàlla la ñun julli dañ maanaam Serigne Touba mënuñu ko fay li tax mënuñu ko fay mooy loolu damay wax si murid yi murid yi maanaam murid murid bu mu mënti doon war na fonk jaamu yàlla ndax ki julli ba julli ci géej tey suñu borom fay ko lii xoolal mbooloo mi jóge fii julli moo leen fi indi de n'est-ce loolu sant yàlla nan gën a toppaat Serigne Touba damay wax Serigne Touba ku ko topp da ngay dem àjjana loolu amul sikk amul amul amul xalaat barke alxuraan lu waral loolu mooy tey boo toppee Iblis foo jëm boo toppee lu bon foo jëm boo toppee lu baax foo jëm ku bëgg Serigne Touba bëgg nga ku bëgg yenente bi bëgg nga yàlla te ku bëgg yàlla foo jëm nan sa taal Serigne Touba bu baax di kontaan ci ci ci bis bisu safar gi waaw bëgg nañ ci bu ba a baax maa ngi lay siyaare tur bi nan la

sa bo degge ay waxam rek wax dëgg yàlla da ngay content trop loolu tax danaka sa aljuma may ñëw fi di julli ci wa mais suñu côté bob mom bari na ay juma mais wax dëgg ya damay dagg lépp du ma xëy sax damay bay li may def lepp ñew pour téré pour jéem ki bi xol bo xol bo bi waaw mën julli bi waaw merci Baye maa ngi lay xaare def sant yàlla fan nga jógee daal di ñëw eh, teewee tey juma ji juma ji maa ngi Colobane mhm. damay asalem 5 fi laay joxe waxtu yu juróom yëpp mhm. lu ci ëpp bokk aju ajuma moom du ma ko waxaale ko lu ñu ko manqué incha allah. Mhm. te loo yëg tey ci xutba gi lépp ñu daal koy jël ci wàccaayu màggal gi ak màggal gi naka lay julit wala mbokku taalib yi naka la ñu mën a demee ca màggal Tuubaa. Euh, yar ak teggin mhm. ànd ak jëf ak yéene te itam euh, li euh, xutba bi wax li imaam wax ci xutba bi ñu koy jëfee di wàññi yenn yëngu yu ndaw yi di ko jëmee ci bis bu tedd bi Seex na Ahmadu ba gën a fonk. ci bisu mag muy bisu màggal bi tey jàppalante ci li ñu man ci koom mi ngir yàlla ak yonente bi jëmee alxuraan barke sëñ Tuuba waaw jërëjëf acca jërëjëf ñu laaj soxna yi salaamaaleykum maa ngi lay siyaare euh, tey naka nga dundee tey euh, euh, xutba gi ak wàccaay màggal xam naa yaa ngi dimbali ma ci rek bi <laughs> naan la fan nga jógee ñëw fii fan nga jógee acca <laughs> maa ngi lay siyaare café gi neex na fan nga jóge daal di ñëw fii nii yëmbal nga jógee daal di ñëw julli si lan nga yëg tey mbégte kay mbégte jaajëfati Fall maa ngi lay caare noo def naka taw feexi noo dundee tey ajuma ji tey ak xutba gi yëpp ñu daal koy jagleel eh, tey wàccaa yu màggal gi waaw ah, xanaa sant yàlla rek sant yàlla bu baax a baax parce que amuñu lu dul màggal gi mm-hmm. sëñ bi dañoo dañoo dañoo dañoo defal lépp loo xamante ni mm-hmm. war na ci màggal bi kon ñun mm-hmm. lépp luñ ko mën a fayee rek mooy ànd ak moom ci mbeg mi waaw lépp luñ ko lépp lépp luñ mën ci lépp luñ mën ci màggal ñu def ko parce gi kon ab murit wërta wërta mën a waaj màggal ndax parce que loolu la am war def lu lu raw waaj lu ñaan waaj màggal parce que moo rek la am ba ba dem jodee sëñ bi dafa dem defal ñu lépp kon ñun tey amuñu lu ñu def lu sant ko rek jàpp la lépp lu ñu mën ci màggal rek ñu def ko fan euh, laa jógee ah, université ñëw teewe a jom waaw tey ñaan tey ñaan yàlla nag yàlla yóbbuñu si jaam ak salaam ah. yoo xew insha allah sawaay mooy kan sawaay la si sama ganel la ah. ñoo ànd waaw naka nga yëgeel ak wàccaayu màggal waaw waajaayu màggal ñu si koom rek comme ni ñu koy waajee bis bu nekk waaw. mooy loolu. saa yi dem ne laaj ne ah du noonu maa ngi koy bàyyi <laughs> maa ngi lay siyaare. yal na yàlla nangu siyaare noo def. sant sëñ Tuubaa la Fall. Abdourahmane Abdourahmane mhm. Abdourahmane tey naka nga dundee euh, jumaa ji tey xutba gi lépp ñu daal koy jagleel ci wàccaay màggal Sëriñ Tuubaa dëgg la waaye xanaa gën a bëgg mhm. woy war a gën a delloo Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul njukkal mhm. ndaxte xëy na bu ñu amee indépendance grâce à Sëriñ Tuubaa ndeysaan dëgg la waaw te amaana lii nii liggéeyu Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul la te jëmmaal na ci sow loo xam ne

doole maam Cheikh Ibrahima Fall la bat si Cheikh kon jekk nañ de <laughs> d'accord naka nga gisee tey ji euh, ñëpp daal di ñëw julli si si ci euh, jumaa masal kontaan ci rek kontaan ci rek bu baax a baax a baax mm. kontaan ci bu baax tey lan nga yëg tey moom sama xol laa set guy ba mënuma wax mënoo wax de waaw jaajëfati merci beaucoup salaamaaleykum baay maa ngi xaare naka na waaje magal gi waaw ñu ngi koy waaj baax a baax a baax mm. waaw ñu ngi koy waaj baax macha allah yàlla na saako ak jàmm rek amiin amiin incha allah salaamaaleykum Fall maa ngi xaare nag yite waay sant sëñ Tuubaa tur bi nan la Sidi Mokhtar fan nga jógee ñëw fi maa ngi jógee ba Colobane Colobane euh, Pikine Pikine na ah. Pikine waaw nga daal di ñëw tey si jumaa ji euh, ngir euh, defee si sa jumaa ajuma ndeysaan loolu nga wàccee magal waaw ñu ngi fi mu toll nii moo wax dëgg ñu ngi ci wàccaay bu baax a baax a baax waaw fi mu toll nii moom wax dëgg yàlla moom eh, yoonu sëñ Touba bi daal eh, kenn ku ci nekk daal ni ko jàppee ne maanaam eh, kenn ku ci nekk daal ni ko jàppee maanaam as ndongo moom daa war a matal lépp loo xamante ni daal ci wàccaa la ne waaw nañ boole yar gi ak teggin gi waaw te ànd ak dal gi itam waaw te ànd ak maanaam li nga xam ne moom la sëñ bi digle maanaam ñuy bàyyi tere yi tey tey tey jublu ci ci ndigal li te loolu am na solo ci ci ci ab dongo waaw loolu am na ab solo ci ab dongo jaajëf Fall maa ngi lay xaare naka yi tey ba yaa ngi jàmm alors naka nga waajee màggal bi waaw takk rek laxasaay fas yéene dem mhm. waaw fan nga jógee ñëw ci Masalikul daal di julli ci Colobane Colobane Colobane nga jógee waaw jaajëf ci murit maa ngi lay xaare bàyyi yaa ngi lam yakun wala yakun li mumkinin ya man la wookun fa yakun jamaate li ma lam yakun wala yakun لممكن يا من لو كن فيكون jërëjëf Seexu Bamba yaa ma ku laam dootul ñàkk bay ñeetaani Bamba yaa jar di xëy di gontu ba far deŋee yaa defal Yàlla lépp lum santaane yaa jëfal Mustafa la xawsu ya tànnoon yaa di xayrul xadimi fi diwaani gërëm loo nga yàlla teg ca gërëm loo ngeen gi yonent wallaay yow yaay waane xanaa pare magal gi léeg ah, yàlla na suñ tubaab dool ne kàttanal bu baax barki seelu xadim nu màggali ko ci jàmm uh-huh. ñëw ci jàmm tur bi nan la Serigne Fallou Faye Moustapha Ñing Moustapha Ñing macha allah eh, fan nga Touba Toul. Touba Toul a dëkk waaw ah, yow de war ngaa miin xombal ko. bu baax sama dëkk la macha allah <laughs> jërëjëf bég nañ bu baax ñëw war jaajëf jaajëf Mara. Mara jërëjëf jaajëf lay siyaare. sax yàlla na yàlla nangu ziar. naka yitte yi sant yàlla bu wér. alors ñu ñëwoon tey def reportage ci euh, ci ci ci wàccaayu màggal gi ñu ñëw gis fi li nga xamante ni euh, daa la. waaw waaw non euh, dañuy e-, exposé. Ah, li wundu bërëb bi. Mhm.

di ko jiite ak kangam yu bari bari waaw euh, donc bi ni téré buñu génné la euh, ñu koy euh, Cheikh Amadou Bamba fondateur de la Mouridia kangam bu mag la bu nek États-Unis di fa jàngale ci université yi ñu koy Cheikh Anta Babu, mom mo fa génné historien la waaw donc day jaar vraiment jaar jaaru Seigne Touba yépp mi ngi fi lépp a gi fi. waaw jaajëfal sëñ bu mag bi. waaw sëñ bu mag bi ma sëñ mag sëñ bu mag bi voilà. lañ dëxañ ci ci biir téere bi moom lañ dëxañ ci biir téere yi jaar jaaram a ci wàllu nasaraan. ci nasaraan lañ ko def ci nasaraan lañ ko def. waaw pour koo bëgg a xam bi mooy ñaateelu édition bi mu am ci fii bi non bi loo xam ne rek. exposition bi dafa jëm ci histoire du Sénégal. lépp loo xam ne rek dafa jëm ci histoire du Sénégal dañ koy bind. du du rek ci té du affaire euh, diine lépp dañ koy bind. donc euh, bii ñu ngi ko jagleel diine waaw mais danañ ko am feneen bërëb yoo xam ne danañ danañ saytuwaat ci diine yi muy diine yëpp ak muy tarixa yëpp waaw de seen ñi ko fondé ñi ko jaar-jaar ñi nga xam ne daal histoire u Sénégal liggéey nañ ci dara dañ bokk ci téere yi donc ñi ngi ci fi mu nekk 19e euh, volet waaw fukki fukki fukki téere ak juróom ña ak juróom-ñeent euh, bindagum nañ ko waaw voilà ma ngoog waaw baax na jërëjëf naka taw feex waaye sant yàlla turum lan la ah man sëñ Cheikh Ngom sëñ Cheikh Ngom waaw waaw Ngom nga sant Ngom laa sant waaw <laughs> alors nga waajee màggal gi ak laxasaay yi nga xamante ni euh, bok taalibe yi moom dañ ko bëgg loolu waay léegi ñoo ngi waajal moom wax dëgg yàlla xasaay gis nga ko nii séerut ku ñëw li nga si am parce que ñun ay taalibe lañ te bëgg noo def taalibe yi loo xam ne loolu bëgg leen yombal ñu si am di màggali parce que màggal ñëpp dañuy soxla laxasaay waaye léegi ñoom bu ñu si amee pour mën a màggali day baax si ñoom quoi te leen jaay ay yomb waaye affaire taalibe la daal waaw ñun lépp bi rek da koy ba pare wala ay par commande nga koy non ñun dañ koy ñëw di jaay bo bo bëggee commande tamit ñu defal la commande ah waaw mais sans départ rek parce que dañuy atelier dañuy di exposé fii rek di def fi mais soo doon yor sun place sun ñëwee indi fi quoi fii moo xam nga fii laxas ay gars yi fii lay gën a lié quoi hmm. waaw waaw ak wàccaayu màggal gi njaay mi dina dina dox dina dox moom ah, macha allah màggal moom léppay dox màggal Sëñ Tuubaa woote ah. léppay dox waaw léppay dox waaw léppay dox ah. lu waay jaay mu jar uh-huh. waaw lu waay def mu yàlla Sëñ Tuubaa di si teg barkeel day am client yaa ngi ñëw client yi noo ngi ñëw macha allah noo ngi ñëw bu baax a baax waaw non non dañ koy oyofal non du miti du miti saa waay du métti yi moom yi la jar moom ay 15000. 15000 waaw. waaw ilaha illallah. laxasaay bii 15000. waaw 15000 boo ñëwee sax léeg-léeg gars yi coppale si dara. coppale si waaw li ay ay la. waaw yi njaxas la waaw yi moom ay laxasaay yëpp laxasaay la. Ah. gars yi moom dañu koy jënd quoi. waaw. yaa fi nekk jaajëfati ak sa alors nañ continuer laaj laaj ni laaj laaj laaj jëwriñ bi ñoom naka la ñuy waajee li nga xamante ni moom mooy euh, màggal salaamaaleykum maa lay saare a ah, yow de yaa ngi ci njaayam njaayam café waaw waaw maa ngi ci kay ah waajal safara bu baax a baax ngir jëm sëñ Touba ndeysaan daa nañ ko def fekkee nañ ko den ñoo ngi ciy sant bu baax a baax a baax a baax mboolem ku ci jóg di dem ci wàllu murit gi rek sunu borom jàppale la bu baax a baax baax a baax lépp nag saafara saafara umma bi yëpp rek lépp jàppale na waaw lépp jàppale na ah. alhamdulilah yaa ngi commencé yëg waaw bu baax a baax a baax jaajëfati alors mu ngi noonu acca daal di continuer waaw Kébaal la ku baax noo def baa yaa ngi ci jàmm tur bi nan la Ibrahima Ibrahima Xalilul naka taw feex lii lan la waa lii maam xidma masaal ko jinaan la waaw maanaam waa ñun waa daahira ma faatuma bisri ñun ñoo yor wàllum parking bi parking bi lépp loo xam si maanaam vraiment eh, am jumaa ji rek dañuy taxaw ñëw seere oto yi oto bu nekk fa nga war a gaare nga gaare fa ñu xoolal la ko ba nga ba ba li nga def pare. organisation waaw bu dee ajuma ji tamit comme noonu gis comme comme ni nga gis depuis fi ñëwee ba léegi rek oto euh, wax fi nga war a boo gaaree ñu nga mën a def say farata ba pare mën a ñibbi si jàmm sa war a kenn ko laal ndax fii tamit bi ñu doog uy jumaa ji di mel ni maanaam euh, ñi sant ñi yaa ma gën a xam dañ fi doon ñëw di def ay nag suñu moo tax ñu jël liggéey teg loxo depuis ñu ubbi jumaa ba léegi ñu ngi fi nag wax dëgg yàlla ajuma ñu ngi fi gàmmu ñi ngi fi weeru koor tamit noonu ñu koy defee da mm-hmm. lay dul xadar bépp événement daal boo fi ñëwee di nga ñu fekk waa daara mu faatu bi si waaw ñu yor wàllu sécurité géeg ak wàllu ko yor waaw ak organisation bi moom xidma bi nga xam ne maam xidma masaar naan ñoom ñoo ñooy daara bi nga xam ne ñoom ñoo ñoo fi ne mm-hmm. képp ku ñoo ñoom ñoo lay dalal ñu ànd ñoom liggéey bi def boobaa lay dox dëgg yëpp Serigne Mbeng Serigne Mbeng jaajëfati Mbeng ak sa li may tëjee mooy mbégte la am tey ñi ñëwoon fi nga xamante moom mooy si jumaa Masaalikul Jinaan di euh, fekke li nga xamante mooy jul ajuma ji gis nga gars yi jóge nañ fépp fu ne mbokk talib yi jóge nañ fu nekk ñu ngir teewee li nga xamante moom mooy euh, jullu ajuma ji mbégte contentement ngay xool gis ko si seen xar kanam tey nag mu ngi noonu mbokk man ma damaa bég ndax euh, dañ maa siyaare siyaar ma xam nga xam nu nga jox ma addiye ci mbir mi mbir mi daal commande kéemaan na Ibrahima merci beaucoup loolu moo doroon si reportage bi nga xam ne ñu ko amaloon fii si Massalikul Jinaan ci julli ajuma ji gars ñu ngi waaj màggal gi waaj leen màggal gi Sëriñ Tuubaa amul morom jaajëf Xalilullaah